wax ak sama frère bi Birama mhm. le président Ousmane Sonko nekkul di négocier derrière le peuple il l'a dit et à l'instant T ba fu mu nekk nii amul benn négociation bu président Ousmane Sonko di def derrière le peuple amul Okay. donc côté boobu moom juste je tiens à être mhm. amul benn négociation moom def derrière le dos de la population parce que il l'a dit ah nee na mënul négocier parce que tout simplement dañ ko teg pression jël arme teg ko ci non ci noonu on a plus de 700 jeunes qui sont arrêtés. Mhm. te ñoom ñëpp instant ils sont en train de faire la grève. Mhm. jamono ba may wax ni ils sont en de faire la grève de la faim et solidarité avec le président Ousmane Sonko mënuñu am ñun ñu téye ko pare nga ne yow da bëgg a négocier tu vas négocier avec qui. Hmm. yow yaa ngi toroxal nit ki yaa ngi dóor et puis les forces de défense et de sécurité encore une fois ils ne se contentent pas de t'arrêter ils te frappent. Il y a beaucoup yi nga xamante ni man ma seet si ils avaient des ils am na ñoo xamante seen kanam yi dañu sàdd j'ai posé la question commissaire il m'a dit que non dañ daan bañ mais bu fekkente ne dañ daan bañ mais les jeunes sénégalais xam nañ leen bu fekkee dañuy bañ ñoom du ñoom rek ñoom ñooy bañ seen xarit yi ñuy ànd dañuy ñëw sot mais le sénégalais respecte tellement la tenue même si l'homme de tenue respecté ko mais sénégalais moo respecté homme de tenue boo ko tegee loxo rek day bàyyi yëpp nga yóbbu ko donc tu n'as pas besoin de maltraiter ces jeunes là donc côté boobu moom euh, le président Ousmane Sonko a catégoriquement refusé de négocier de parler avec qui que ce soit tant qu'on par pas libéré ces jeunes beneen affaire bi mooy ñu du ñu ay duñu ay soldats Pastef y a pas de soldats à Pastef ñoom ñëpp ce sont des jeunes ñoo xamante ni ñeneen ñi ay ingénieurs lañu ñeneen ñi ay journalistes lañu ñeneen ni ay menuisiers lañu ñeneen ñi ay dawalkat charrette sax ñu ngi ci biir ku nekk. Mhm. chacun est dynamique ce sont tous des citoyens. et ils son tellement conscients et tellement responsables malgré leur jeune âge ils on quand même un projet qu'ils portent dañoo gëm projet bi xam nga nit ki l'expérience là ba ngeen di wax mais c'est l'expérience là moo ñu yóbbu fii nii tey fu ñu dem expérience ba ngeen wax noonu moo ñu yóbbu tey fu ñu dem parce que malheureusement Macky Sall aussi amoon nañu yaakaaroon ci moom qu'est-ce qu'il a fait il a été prendre ces gens qui ont de l'expérience qui qui ont accompagné Abdou Diouf qui ont qui l'accompagnent actuellement et ce sont ces gens-là qui sont en de le pousser à la faute parce que bëgg nañu am fu ñu bëgg a dugg te dañoo xamante ne bu ñu ñëwee parce que président Ousmane Sonko a dit quelque chose de très clair si ne traînes pas des casseroles moom Sénégal moomu ko dina liggéey ak yow mais bu fekkente ne da ngay traîner ay casseroles finance da nga xamante ne yow moom seen yoon yi du ñu ànd et ces gens-là ils ils sont dans de bonnes conditions grâce à l'État ñoom itam suñu liggéey. Hmm. amuñu métier. en tout cas chef chef infraction bi leen manqué woon matal ngeen ko mooy vol. parce que depuis ñu ngi leen di lijjanti xool loo sàccul loo leen am ngeen infraction bi nag boole leen ko seen <laughs> palmarès. ñun ñun boobu lañ doon lijjanti. sa lu fee rek sa lu fee rek parce que nit ki noonu ñu ngi ñàkk imagination bi nga kii ñu vol. yow bu fekkente ne vraiment yow da nga pare pour pour arrêter ko mais qu'est-ce que t'empêche de le faire. qu'est-ce qui t'empêche de le faire te beneen affaire bi am na aussi da ngay wax ni maturité quand tu le président de la République du Sénégal tu n'es pas n'importe qui il de a des choses des yi nga xamante ni waroo ci dugg déjà suñu assemblée rek dañ ko salir comment wax ma comment on a pris une insulteuse. non est-ce que duñ ko dina ci ñëwaat. waaw dina ci ñëwaat waaw à 16h. à 16h mais avant ça assemblée bi dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw ci kanam mais je ne voudrais pas quand même que ñu personnaliser un peu. parce que non non je ne personnalise pas mais je je dis je dis non non non car vous savez vous savez vous avez parlé de maturité et instant yi Ousmane Sonko c'est son alter ego et il est incha allah le futur président de la République. donc nag moom nag booy cité maturité maturité normalement il faut nga wax aussi maturité koo xamante ne moo fa nekk. jamono il part d' accord mais quand même xam nga très souvent waa waa APR dañuy imposer ay éléments de langage yi nga xamante ni foo dem ci palateau dañ la koy wax tout à l'heure mon frère la bir Birama il parlait de la violence da nga mës a gis moo tax samay wax ne nous on n'a pas d'armée da nga mës a gis benn militant de Pastef ñu am activité ba nga am fa musul am bu ñu paree on nettoie tout da nga mës a gis benn meeting wala benn manifestation bi nga dégg waa Pastef ñoo fi nekkoon di rey ñu liggéey dañoo xeex seen biir musul am parce que lan dañu gëm Sénégal dañu bëgg Sénégal. donc ñun nous sommes des patriotes et nous sommes matures la maturité chez amul age même le jeune doo xamante ni il a 16 ans qui vient d'adhérer à PASTEF dafa am maturité parce que dafa xamante ni moom moo war a defar Sénégal te du Sénégal moo ko war a defar du état Sénégal moo war a comp dara jox ko ci loxoom pour moom mu mun ko tàcc. donc on peut s'attendre à ce que fii ak 7 mois.